ñun dañuy wax ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci wax suba di ci wax ngoon di ci wax guddi du ci wax bëccëg Sénégal moo mooy dëkk bi ëpp lu muy gàmmu ci àddina bi daanaka mën nga wax ne weekend bu jot ay gàmmu la léegi vendredi yi sax dañ ci organiser gàmmu sans compter émission yëg yëpp mais malgré tout ça Sénégal ni ñuy bokkaalee yàlla dafa jéggi dayoo maanaam tey bu fekkoon dañuy concours dëkk yi gën a mën a bokkaale yàlla ci wax ak ci jëf Sénégal du des ginnaaw ànd ak loolu yëpp ñu ngi woote ne dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te màndarga bëgg yonent bi alayhi salaatu wa dafa bokk ci li koy firndeel mooy nga xool li mu bëggoon nga bëgg ko nga xool li mu bañoon nga bañ ko te yonent bi sallallahu alayhi li mu gën a bañ ci àddina mooy shirku billahi te ñun tey nag sujet tabou la daanaka nit ñi sax buggatuñ kuy wax ba yegg ci affaire shirk ñu bëri dañ koy tëb jàll su fekkee ne nit ñi mënuñu dugg ci détails yi warugar la ñu ñu junju attirer ci attention nit ñi parce que suñu cofeel ci yonent bi li koy dëggal mooy xeex li mu doon xeex saxal li mu doon saxal loolu mooy dëgg tey ñun ñëpp bu ñu xoolee suñuy wax suñuy jëf suñu yenn comportement dafa fees dell dell dell dell ak bokkaale façon boo xam ne dafa jéggi dayoo ànd ak loolu yëpp ñu ne ñun ñoo gën a bëgg yonent bi loolu loolu tanaqut la bu rëy rëy kon point boobu laa bëgg a wax ne dafa bokk ci ni ñuy nattee ku bëgg yonent bi mooy taw tawxiitam almuhibbu alsaadiq li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuwaxiduhu yuwaxiduhu kama kama waxadahu ar rasul wa sahabatuhu alkiram loolu mooy li ëpp solo yeneen yi ci des yëpp nag ay détails almuhibbu alsaadiq li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafay daw bokkaale ak mboolem forme bokkaale yi moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moo xam ci comportement la parce que nag li kulli maqaamin maqaal bu ñu teewee ci yu mel ni si jamono yi di wax si yonent bi nañu xool fi feebar bi nekk ñu joxoñ ko sinon dañuy trahir mission bi actuellement li ñu war a wax population bii mooy nañu wax ak ñoom ci tawxiid tawxiid nit ñi waxatuñ ci nañu wax ak ñoom ci sunna sunna nit ñi waxatuñ ci nañu leen moytandikuloo bokkaale nañu leen moytandikuloo biddaa thème yooyu mooy priorité parce que yeneen thème yoo traité yu dul yooyu yooyu naafila la rek mais lii mooy farata ji donc suñu bëgg ci yonent bi sallallahu sallam li koy confirmer mooy tawxidul ilah tawxidan awalu ma yajibu ala al mukallafi tasxihu imaanihi bu loolu jàllee ñu jàngal nit ñi kan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent mooy ki gën a màgg ci mbindeefi yàlla yi yàlla moo ko tànn def ko mu nekk ki gën a màgg def ko muy nit ku mët ki loolu yëpp daf koy prépare pour mu nekk royukaay sur tous les plans parce que royukaay dëgg-dëgg dafay mët boo gisee ñu naan julli di nañ leen jàngal yonent bi jàngal leen màggaayu yonent bi parce que dañoo bëgg lu dul yonent bi tuuti ci say bët su boobaa ci nga koy mën a def royukaay waaye su fekkoon dafa mat ci côté bi manqué ci côté bi da nga naan naa dem seeti ki mat ci côté bi mais yàlla moo bañ moo lànk moo bëggul kenn mët ku dul yontu yàlla muhammad ndax mu mën a nekk al qudwatul kaamila mbindeef lu mu rëy rëy ci sa bët boo ko xoolee am na fu mu manqué ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggaayam boobu nga xam ne mooy màgg gi dëgg-dëgg ci la ko defee al qudwa al kaamila mu nekk royukaay bi nga xam ne mën nga koo roy ci lépp su ko defee da ngay xam même booy ànd ak borom xam-xam même booy ànd ak ab sëriñ wala ab jàngalekat da wan rek yonent bi parce que moom daa manqué moom matul parce que dundam am na vie privée parce que su matoon du am vie privée mais ki nga xam ne moo mat léppam la ñu war a roy kooku amul vie privée mooy yont yàlla Muhammad